jërëjëf fidèle jigéen jigéen point comme ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen jaajëfal comme niñ ko waxee nag jigéen buñ nee jigéen lépp loo xamante ni euh, ci wàllum jigéen la ci la ñuy jox spécialement jigéen ñi nga xamante ni dañoo boole fulla boole fayda boole jom di liggéey gisuñu lenn lu dul gagné euh, ci seen ñàkk ba tax na nag tey jii dañ leen a indil benn femme entreprenante femme boo xamante ni newul kenn may ma femme boo xamante ni yaakaarul kenn ci lenn lu dul li nga xamante ni moom moo di ñàkk rakkam ñu koy wax yaama euh, ci condition yi nga xamante ne ci lañ ko xamee nag moo waral tey jii ñu jël suñu tànk ñëw bu biir këram fekk ko ci li nga xamante ni moom moo di domaine am te domaine am kenn du leen ko nettali ndax li nekk suñu ginnaaw machine la mais dañ koy daal di bàyyi mu nuyoo ba pare euh, ñu dugg ci émission bi. maa ngi lay delloo ziar bu baax baax a baax a baax baax di leen nuyu di nuyu waa Sénégal di nuyu sama fans yëpp di nuyu aussi seen téléspectateurs yi. di leen wax ne leen maa ngi leen di baal àq di leen baalu àq ci korité bi ñu jóge yàlla ñu yàlla baal te may ñu wér gu bare bare bare lay bëgg du bëgg du du seet mbëggeel amul melo nit ki li ngay bëgg ci moom doonul chaise bi doonul lii mais xam nga yaama nga bëgg en personne waaw man ki ma sëyal euh, génnuñu sax xanaa presque un mois xamoon du ngoro bu yàgg parce que suñu buntu kër la ma romb ma toog nii mu laajte ma expliqué ko ba mu wëññee ko ci la ci la ci la ne daf ma bëgg comme soxna yàggul waaw. waaw ñu dund dañ lu neex bi yàlla weddee aussi ñu tàqali ko ci jaam mais on est des amis parce que am nañ njaboot am naa moom ay doom yoo xamante ne ma am lu leen mag moom aussi am na ay doom yu ak man yoo xamante ne mënatu leen mag divorcé ak nit ki ne veut pas diir que ne da ngeen war a nekk ay ennemis one toujours des amis. waaye tàqale waaw. comme ni nga ko waxee étape par étape la mhm. mhm. bi mhm. jur ci nga yëgee ni yow mm, euh, yaama. am na war bi ñëw. njëkkee am doom bi ma njëkk ëmb sama première ëmb xaw ma woon luy grossesse parce que boobu j'étais toute petite aussi. Euh, maa ngi am doom sama grossesse maa ngi ko am à l'âge de 19 ans xamaguma woon conséquence grossesse bi ak sama handicap léegi bi ma demee bi damay dem ak ëmb bi sama yaay bu ma xoolee rek day yëngal bopp bi ne ma yàlla na la yàlla may omi sedd ma ne ko luy loolu mu ne ma waa baax na bañ toll ca ndeysaan loolu la ma daan def bu ma waxee rek mu ne ma yàlla na la yàlla may omi sedd je savais pas xaw ma woon fi muy waxee ba bi ma tollee nag ci mat bi ma ëmbee mu diis mënatuma dem mënatuma dikk toog benn place rek laay mën parce que àttanatuma on chaise bi pour dem ak moom waaw boobu sori naa léegi nag damay toog rek di paase parce que daf ma ko mënoo dox del paase pour nga am force sa grossesse sa doom bi mën di yëngatu li nga waroon def marche ngay def mouvement mais bi may accoucher sama taaw bi dafa naan su ma ne ko yaay sama biir bi day metti li may yëg nangam ak sàngam mu ne ma ana puus-puus bi ma ne ko mu ngi nii mu a ma kon accouché ko mais boobu xamaguma woon di xew waaw accouché ko xam nga loolu la ñuy naxee nit parce que danaa ma su la jàppee dëgg doo tal a gis sa chaise roulante bi yëfi mag rek xam nga su ma ko waxee nii su ma ne ko yaay sama biir dama fanaanoo biir bu métti mu ne ma ah, ma ne ko ana puus-puus ma ne ko mu ngi nii mu ne ma kon muy tegul bàyyi ba ci kanam bu méttee dëgg doo ko gis mu ne ah mu noonu la ma naxee naxee ma noonu ba sama accouchement boobu awma ci problème mais sama troisième accouchement nag sama troisième bébé ci laa sonn boobu nag xëy na bakkan yàllaa ko yor mais boobu heure bi waroon naa fekk sax du ngeen ma xam ba di ma jël parce que j'étais très très très très très fatiguée te li ma sonaloon yëpp du sama grossesse du sama dara mais euh, manque d'assistance bu ma amoon ci biir hôpital bi moo ma sonaloon xam nga loolu moo waral ñu ne patience en danger xam nga euh, nit ñi dañu comprendre que ni kuy dox rek tu es kuy dox rek tu es un patient du moment à l'autre feebar mën na la dal wala nangam moo tax sama mbokku médecin yi ak sama mbokk euh, sage-femme d'État yi bi ñu ma gisee ma def sorte bi bon c'est pas grave lynché nañ ma sur les réseaux sociaux xas nañ ma saaga nañ ma mais amul problème c'est parce que xëy na ils n'ont pas compris man li ma doon wax mais ba ma jooyee ba tey nit ñaa ngi continuer di jooy te yemut foofu damay accoucher étant une femme handicapée léegi bi ma ñëwee bi nga ñëwee fii bi nga ne ma toggal ci chaise bi xam nga dama ne la mënuma ci togg c'est parce que dafay am foo xamante ne man fara sama niveau yam mais imagine table d'accouchement yàlla bu la ump dafa njool léegi man mënuma taxaw est-ce que mën naa yéeg ci kaw table d'accouchement mënuma ko sage-femme d'état bi may bi ma fa fekk bi ma ñëwee dama ne ko ah madame s'il doo ma may loxo moom dafa ne ma yéegal ci kaw taabal ma ne ko non mënu ma yéeg ci kaw taabal bi man kenn jàppale ma ma yéeg mu ne ma non mënu ma la jàppale pour man sax bi ma waxee loolu daf may tooñ wala nangam mais elle a été catégorique sur ses propos ma du mënu ma jàppale man ñetti fa fekk mais kenn ki rek moo mën a yegsit ci biir hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack parce que man je suis de Kaolack ma dem mu dem bàyyi ma fa tëj bunt bi man rek ci biir salle d'accouchement bi amul kenn ku ma mën a dimbale j'étais obligé ma sës chaise bi man ak sama jëkkër ak sama tante ñoo àndoon ñoom ñu ngi ci biir te xam nga salle d'accouchement yi fii kenn du dugg donc yow ñoom rek yaa fay nekk yow mii malade bi loo mënul nettali keneen du ko du ko fa fekkee dama chaise pousse chaise bi ba mu sës ma jàppandu wàcc ci suuf man accouché naa ci suuf wàcc naa chaise bi daanu ci suuf accouché non bàyyi na ma foofu tëj a dem yoonam ne ma yow mënoo accoucher euh, mënoo def accouchement normal dañ lay césariser ma ne ko waa d'accord <laughs> mais man li may yëg maa ko xam man mi accoucher man maa ngi wasin c'est par la première fois may am doom non dama ne ko yeewal ma dama ne ko ana ko euh, bi parce que ñun bu ñu demee ci hôpital yi dafay am ay gynéco yoo xamante ne daf ñuy suivre de près ma ne ko ana ko bi mu ne ma gynéco bi yeewagul ma ko demal nga yee ne ko Mariama ñëw na moom boo ko waxee loolu rek dina xam mu ne ma noonu dañ la programme woon dans ma ne ko mais mën ngeen ma programme mi yàlla def xam leen ko waaw mu ne ma dañ programme ma ne ko non mais maa ngi wasin man mu ne ma noono génn ne ma waa yéegal fële munu ma yéeg mu bàyyi ma fa ci laa wàcc ci chaise bi ci suuf wàcc naa ci chaise bi ci suuf tëdd naa ci suuf ba accouché ba jël sama doom tëral ko ci sama kaw ba tëdd ci tëraat ci suuf te kenn ñëwul tëdd naa fa ba am 30 minutes kenn ñëwul ci ci biir salle bi moom bi muy ñëw c'était pas pour dimbale ma mais daf ma doon wax si ne ma gynéco bi nee na mu ñëw mu fekk ma ma accouché ma ñëwee gis ma ma tëdd ci suuf uuf sama doom réaction bi mu njëkk a def xay Mariama da am doom ma ne ko ah oui waxoon naa la ko non loolu ma su ma ko defatoon du baax parce que xale baa ngi doon juddu. maa puus maa maa wasinal sama bopp man kenn jël xale bi naam mënuma woon dagg nag cordon bi mais noonu lañ ma noonu laa tëddee nii ci suuf tëdd nii tëdd naa fa 30 minutes yoo xamante ne kenn ñëwut après ci lay doog lay bi mu ñëwee lim ma defal mooy dagg cordon bi ñu faj ma defal ma première soins yi après ci lañ ma jéem a jàppoon nag yéegal ma ci kaw table d'accouchement bi. beneen waay. bu ko mi yéeg ci kaw table d'accouchement bi te loolu c'était trop tard. comme ko defee wees na da dem hôpital doo am doo am benn assistance imaginez man en tant que handicapé man su may accoucher rek dama war a man assistante sociale bi sax dañu war a ñëw bu handicapé yi di accoucher ñuy xool comment naka lañ leen di traité c'est pareil pour tout le monde sax mais ñun ñoo ci rawati ñun ñoo ci rawati parce que soo génnee bëgg a dem porter plainte wala nga bëgg a dem def yenn yi sa famille ñoo la ci dul bàyyi man bi ma génnee bi may génne sax dama leen wax carrément maa ngi dem mais dinaa dellusi fii ci hôpital bi te dinaa ko wax assistante sociale bi dinaa leen yóbbu si yoon mais xam nga sa parent yi ñoo ci dul bàyyi sama yaay moom ma topp naan ma waaw yàlla na ko yàlla yërëm yaa ma ma ne ko naa mu ne ma waaw xam nga kii soo ko yóbboo si yoon xamoo ñaata nit moo topp si kaw famille am ci ginnaawam di li salaire genre xam nga dañ lay wax yoo xamante ne doo après doo mën dara mais du la neex. waaw moom noonu la ko noonu la ko gisee dafay wax ne moom maanaam waruma ko kii daal. waaw moo indi kaaw as soxna bi. man accouché naa dama accouché biñ ma yëkkatee ñoom ba teg ma ci table d'accouchement bi li ma njëkk a mooy nelaw parce que j'étais fatiguée dama nelaw nelaw yu sonn man tëdd naa presque nelaw naa ay deux heures de temps sax gisuma sama bébé bi parce que xamoon naa ne góor la parce que man maa dimbale sama bopp ma dem tëdd ñu tëral ma foofu bàyyi ma ma nelaw ba yeewu bi ma nelawee ba yeewu nag bi ma génnee bi ma koy expliqué sama ñoom bi ma leen sama jëkkër bi mu dugg see fekk ma ñu teg ma ci noonu ci salle bi fi kay tëdd boo accouché pare bu ñu la génnee ci salle beneen salle bi bi ma leen koy expliquer mook sama tante bi ñoom li ñu ma njëkk a wax baal leen comme accouché nga ci jàmm rek garaawul comme am nga bakkan rek baal leen xam nga loolu moo tax doo doo comprendre doo mën def dara mu ne ma yow comme jot nga sa bakkan rek te bébé bi jot na bakkanam alhamdulilah léegi yow amul problème waaw soo gisee li tax ma bokk ci pas xeexu patience en danger bi c'est parce que man sama xeex yëpp du sax loolu rek mais la réintégration de la femme sénégalaise handicapée au niveau du Sénégal dañ ñun dañ ci am part de respect dañ ci am wàll est-ce que comprendre nga ñun doonatuñu ay nit ñoo xamante ne dañu war a toog xaar man boo surfee si si si sa téléphone di nga gis j'ai fait pas mal de vidéos yoo xamante ne ay intervention yu may def lépp pour amélioration waay laa ko jigéenu waay laa moo gën loolu moo gën a métti nga nekk waay laago xam nga amoo benn considération plateau médical yi baaxul pour ñun man bi ma accouché ba pare rek dama obligé génn hôpital bi parce que am amoo fu ma dugg saal yaa ngi ci kaw mënuma yéeg ku mënul yéeg table d'accouchement di nga mën a yéeg ci salle salle yi nga xam ne soo accouché ba pare fa nga war a nekk ba wér deuxième premier te xanaa duñ ma yóbbu réanimation ñoom ci seen bureau lañ ma tegoon foofu laa tëdd ba régulariser sama saw bi et ñu doog mooy bàyyi ma dem ñibbi dama obligé jëlaat ñu boolewaat ma ak keneen koo xamante ni ci hôpital ba lay liggéeyee ma koy sama jëkkër di ko fay journée mille muy ñëw di ma defal di ma faj ci biir kër gi ba ma ma xam nga loolu c'est pas normal ah waaw mais foofu la Sénégal toll problème d'accessibilité li may dund li may metti lépp mooy problème d'accessibilité parce que man awmaa kenn problème man man man awmaa kenn problème man mën naa demal sama bopp man bu may génne soxlawu ma ku ma puus ma ku ma dimbale soo may puus sax au contraire da nga que nga may yàggal mën naa demal sama bopp mais li may métti rek mooy nga bëgg a dugg fenn rek mu inaccessible ci yow imaginel bu ñuy tabax war nañ sóoraale handicapé yi defal leen benn rampe duñ ko def bi ngay dugg léegi sama kër gis nga xëy na yàlla moom ma tombale ma am kër gu nekk ba rez lépp nouveauté mais c'est pas accessible am na ñoo xamante ne mënuñu yéegal seen bopp dañ war a def ci rampe yi da ngay dem banque amul accessibilité foo dugg amul accessibilité loolu état bi war na ci bàyyi xel ñiy tabax su leen tegoon yenn sanction yoo xamante ne ku tabax te defoo ak defoo rampe defoo méthode braille pour les personnes euh, non voyantes xam nga defoo langue des signes pour les sourds-muets bu ñu leen ko defoon léegi léegi léegi nga gis ñu changé ko mais defuñ ko donc c'est pas facile ñun on n'a pas de vie ñu ñooy forcer suñu bopp mais sóoraale wuñu ci dara te loolu c'est grave waa xam nga loolu c'est une loolu set une ont gàcce la on au vingt-et-unième siècle benn Sénégal benn orthoprothésiste moo fi am orthoprothésiste mooy ki lay defal appareil bi ngay takk yow handicapé bi gis nga ñoo xamante ne dañuy doxee béyki yor ñaari béyki wala benn di takk appareil pour seen tànk am na ñoo xamante ne ñaari appareil la ñuy takk benn benn nit rek moo ko fi def ñi ko fi doon def yëpp màgget dañ jël seen retraite nous on est neuf pour neuf virgule laay wax sax pour cent de la population sénégalaise kon xam nga ñun doonuñ nit ñoo xamante ne nit mën na dem bàyyi ñu mënul nekk léegi yow da ngay nekk handicapé nga jóge sa dëkk ak dëkk ñëw pour ñu utal la appareil benn appareil yu bi war la dikk trois cent mille francs nga war a jël ñaar certifié six cent mille est-ce que loolu am na ñu kape yu ko mën benn mënuñ ko dangay am benn crochet vis bu yàqu ci sa appareil nga jóge Géejawaay di dem Sénawo Sénawo mu ngi hôpital Fann soo demee dangay dagg tikki te liñ lay defaral cent franc rek la la war a dikk wala deux cent franc xam nga loolu rek waroon nañ ko décentraliser mu am ay hôpital yoo xamante ne dafay am côté boobu côté Géejawaay côté yooyu zone boobu yëpp lu leen jege amul soo ñëwee boobu da nga jënd ticket cinq mille francs boo jëndee ticket 5000 francs nga ñëw dañ lay defal consultation ana borom ñaar anak koo xamante ne lii lay doxee lu ci amul consultation jëlal appareil bi nga dugg ci biir nga montel ko yëfam mu dem yoonam parce que mooy tànkam mais dañ lay defal consultation jox la rendez-vous nga dem te yow yaa ngi yow déjà rek yaa ngi dox mais doxoo parce que du moment euh, euh, à l'autre mën nga daanu sa tànk bi def morso parce que takk kuy takk appareil moom à risque ngay doxee su fekkee amoo appareil bu dëgër léegi dañ lay bàyyi nga dem ñu jox la rendez-vous deux jours nga ñëwaat nga passer taxi aller retour nga ñëw ñu doog lay monter le vis bi est-ce que loolu c'est normal loolu c'est pas normal chaise roulante boo ko bëggee fii ci réew mii minimum coût bi gën a ndaw boo deful quatre-vingt mille francs doo ci toog wala nit may la ko man na yàlla def na am naa ay bonne yoo xamante ne ay fans yoo xamante ne ñoo ma bëgg te yàlla rek tax man mosuma ko jënd mais damay jonkwaat teeg loolu ndax léeg-léeg ma xëy sama chaise yàq ma dugal ci Facebook bi bind ne neen dama soxla chaise raktak ñu may ma chaise mais am na ñu ko est-ce que am na ñoo xamante ne am nañ loolu am na ñu ko amul paire de béquilles quatorze mille neuf cent lay jar quinze mille francs soo ko amutee doo doxee ñaari béquilles mais yooyu dañ ko waroon maye yooyu dañ hôpital ñun dañu waroon dem ñu ñu koy jox buñ koy jaayee quatorze mille neuf cent bu handicapé bi indee cinq mille francs ñu jox ko paire de ki mu dem loolu mooy yoon boo nekkee yow une personne boo xamante ne sur chaise roulante nga handicapé motrice nga dañ li la war a njëkk a defal mooy soo ñëwee bu lii day jar quatre vingt mille franc boo ñëwee boo joxee dix mille franc ñu def ko état daf ko war a subventionné quatre vingt mille minimum minimum bi gën a ndaw boo amul quatre vingt doo ci toog cent cinquante mille nangam ak cent tout récemment am na ku ma woo a ma waa dafa am benn chaise bu may jaay nangam ak sangam cinq cent mille man na ko may sëñ bi cinq cent mille su ma ko amee dama koy toog di ko seetaan dama mun waa chaise bi nii nii man ko toll ko ma ci chaise cent cinq cent xam nga man handicapé laa pur et dur mais su ma doxee ci bedd wala ma dugg taxi wala ma dugg oto ba romb ko handicapé bu tàllal loxo damay mer damay mer à chaque fois nag dama koy wax di ko waxaat mais duñ xam man samay tànk ñoo bañ mais sama xel mi dara nekku ci sama ñaari loxo yi cent franc nekku ci boo yalwaanee ren ba déwén war nga mën a entreprendre dara du dëgg mais nit ñaan dafa metti ñaan moo ren di ñoo yem boo ciy def nit dafa war a gaaw imaginel man man bi may commencé commencé wu man lu bari machine bi laa am benn machine bi laa am tout récemment def naa benn sorte ci benn télé di ñaan beneen machine man benn machine laa am ci laay góorgóorlu te sama benn machine bii li ma ciy gañam lépp ci lay fay sama location ci laay jox sama dépense ci laay yor sama bopp mais xeebu ma ko mais soo waxee si yalwaan bi ñu ne la boo yalwaanu lan ngay def mais nga liggéey soo dee góor nga demal nga defi cordonnerie soo demee defi cordonnerie cordonnerie di nga gañe di nga jaay say dàll man dem nit daf may fekk ma toog di jaay sama yére ci benn bërëb day jënd même su ko bëggul sax daf ne ma damay jënd parce que da am jom man daje naa dem naa benn dëj sama benn copine jëkkëram génn àdduna ñu dem fa di fa dem chaque jour ñu dem su ma demee ji gàddu sama jaay di jaay mais am na benn célébrité boo xamante ne Soda Bousso daf ma fa fekk maa ngi koy nuyu de passage c'était la première fois ñu daje mu ñëw gisuma ma joor samay robb mu jënd ñetti robb mu ne ma xam nga lu tax ma jënd rob bi mu ne mu ne ma c'est du parce que dama ko jënd nii mais dama ko jënd parce que yow buñ booy jaay ku ko fekkee dafa war a jënd mu jënd mais su ma toogoon foofu est-ce que soo bu soon na ma sarax mais du sarax parce que du ma xàmmaliku sama di ma sarax mais damaa ñëw nit da nga war a nit da ngay gëm sa bopp pour nit fekk la ci mais toog taalal sa loxo sottal mbir mi de. comme niñ ko dégloo ah yaa ma wax li nga xamante ni moom moo nekk ci xolam li nekk ci biiram li nekk ci bitéem avant handicap di ko dal pendant ci ni ko handicap dalee ni mu ko dundee waaye tamit ni mu continuer di dundee dundam wax na tamit wax boo xamante ne waxu ko seulement ngir ñi nga xamante ni moom ñoom ñoo bokk situation waaye wax na tamit jëmale ko ci koo xamante ni jigéen nga jigéen nag moo waral euh, li nga xamante ni moom moo di suñu émission bi ba tax na paralu yaama yi tey jii ku ko déglu dina am nu mu la def bu fekkonte ni danga nga toogoon euh, ni doo def dara dangay ngay xaar ñu dimbali la yaama tey jii dina la yokk jom ndax euh, fu mu jógee sori na te fu mu dal tamit metti na waaye tamit lépp dañ ko koy te ko ci loxol yàlla jigéen jàmbaar jigéen euh, boo xamante ni euh, day nekk ci lu neex yàlla jigéen boo xamante ni day takk sëram waaye jigéen boo xamante ni chaque jour li muy dundee day fekk mu jëlee ko fii jigéen boobu la ñuy jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah.